bëriwuñ ko quoi. waaw léegi yow comme par exemple comme li nga wax. léegi ñun président de la république ñun ñëpp duuf ku nekk daal def na analyse mais léegi ñun suñu maire yi dans tout ça. voilà. sunu maire yi dans tout ça. xoolal ñoom ñoo gën a man yàlla ma yàlla baal barki alxuraan man yàlla ma yàlla baal mais gis nga mais gis nga surtout surtout surtout surtout bu grand yof surtout bu grand bi bi ñuy bi ñuy tudd bu ñu nekk xam nga pare xam nga xam la wala non ma général man man mais mu tudd ma de c'est-à-dire dama ma nekk laa gën a xam lu mu joxe ak lu mu joxewul. lu mu joxe lu mu joxewul xam la non xam la benn affaire parce benn affaire moom xam parce que dem xam nga seen bay pass seen bay pass maa ngi doon waxtaan ne ma nga ne ma coupe du monde ne ma coupe d'Afrique 92 nga ne ma ñu sax lañu doon participer. waaw xam xam nga yaa ma doon wax loolu. nga ne ma coupe d'Afrique 92 nga ne ma ñun sax. dañu doon jaay ay école sax dañu daan jaay ay calendrier di participer. xam la rawatina nag coronavirus. yaa ma di fii waxuma de mais jumaa yi sax laa dañoo woon di participer. jumaa yi mees yi xam la jumaa yi sax dañoo woon di participer mais mais yow yow yow man a ah, ah, man pour dire vrai de pour man pour dire vrai de barke yàlla baatu mosuma ba ma juddoo ba léegi mosuma neex mais mi ngi may neex non parce que dafa am li nga xamante ne maanaam nit loolu lay soxla xam nga nit xam ne la lay soxla xam ne la lay xam la bu dul xaalis kuy wax ak moom xam la man dafa am li nga xamante ne boo ko joxoon maa nga koy wax wala nga koy war muy gis xam la mais ñun Sénégal ñun ñëpp fenn lañ ko kal Macky moo war a def point xam la gouvernement moo war a def point xam la man waxuma la sa mais jeune commissaire waroon nañu mën di def cotisation jënd ay affaire lancé ko maire bi loolu moo waroo nekk premier rôle ñëpp yi ñeent bi fii ñeent fii ñeent association bi ñeent association fii ñeent association ngay dégg association ngay Sénégal moo tax association association bu dégg nga mais ba mu amee ba léegi ban association nga dégg ah ndëgëm la ànd faxas corona waaw ñoom dañuy non des fois nga def non des fois xam nga problème des fois nga benn benn bu ko def parce que loolu mooy yoon parce que loolu mooy yoon xam nga mais yow mais yow da ngay toog après corona bi nga dem sami ah wala nga dem hôpital ba distribuer ay ay affaire ne damaa dem distribuer affaire mais bàyyi yow ñooñu ngeen distribuer noonu bu neex population bi ñoo gën a soxla population bi la war a jiitoo xam la même boo leen kiiwul nga jël sa ma jóg ma joor la xam ma ma joor xam mu yuuxu sensibiliser lii lii mais mais noonu la mais boobu amul jëlal loolu nga wax ñu wax gars yi xam ni kat lii am na lu xew tee leen xale yi def leen lii def leen lii. mooy ma la wax léegi léegi sax. mooy li ma la wax mooy fi nga fi ma li may wax nii loolu fa ngay delluwaat cest dama ne la par exemple képp koo xamante am nga benn fonds boo xamante ne mooy caisse noire yeeg affaire yooyu noonu ñoom ñoo war a njëkk a génnee seen kii 60 70 pour cent wala 60 pour cent si seen budget boobu génnee ko teg ko def ci ay affaire maanaam loolu noonu boo ko defee yow déjà comprendre nga di inspirer population bi wala wala citoyen lambda pour ñu a pour ñu jéem a def dara quoi comprendre ni mu la bëggoon. lu muy wax dëgg dëgg économiquement Sénégal nu muy doxee maanaam TVA bi gars yi ñu war a fay ak yow li li nga war a jënd TVA bi dañ ko ci dinde consogu ko tamit benn saa suñ ko booleen waroon nañ mën a wa état bi waroon na mun a nekk euh, waroon na mun a def les les premiers pas mais te état bi les premiers pas moom defu ko moom dafa xaar gars yi pour ñëw mu maanaam mu def xaw ma xaw ma seen affaire solidarité boo xamante ne gars yi dañu war a génnee xaalis bu bari yëkkati ko jox après moom tey mu doole ci su ko mu jël ko yóbbu ko budget après après ñu mën a mën a mën a financer premier plan bi yow plan d'action bi tey jii nii. ce qui me pousse à me l'argent du Sénégal est où. C'est juste une question. C'est à toi maintenant suite à mooy comme tout à l'heure ni ko doon wax comme tout ma ko doon wax bi ngeen nay may jox ne ñoo ñi nga xamante ni ñooy suñu exemple n'ont pas donné les bons exemples. n'est-ce pas ñun sénégalais ngay déglu ma la sa bakkan sa bakkan la kenn gënu la ko bëgg kenn fekkente ni ki la jox war a jox exemple il ne suit pas yow yaay jël sa responsabilité bopp amul président corona bàyyiwul président bàyyiwul je ne sais pas premier ministre ou chef de chef de chef de l'assemblée Sow écoute d'accord naa ko gis nga gis nga ne comme ni nga ko waxee suñu mairie bi gisoo ba léegi ñu génnee jënd ay gel antiseptique jox nit yi jënd ay masque mais mais mais moom wax dëgg la mairie bi def ko mairie bi def mais ku nekk père famille famille bu nekk jënd nekkee benn gel antiseptique bu 500 jox sa doom jëndal ko masque bu 1000 francs jox ko ne sooy génn def lii confinement bi balaa policier duñu dàq ji fii ku nekk sa responsable ne nga sa doom benn 19 heures bu mu jotee bul génn kër gi parce que xam nga ne su génnee lu ko fay fekk c'est vrai ngi naan violence policière violence policière policier amuñu droit dóor nit yi mais policier lu tax ñu dóor nit yi parce que nit yi leen dóor pour seen propre sécurité c'est vrai que xamuñ ndax coronavirus bi guddi lay doxam bëccëg lañ dox kon réseaux sociaux yi ni ñuy wax naan Sénégal génnee na loi bu bees corona bi léegi guddi lay dox moo tax ñin ñi tëj ñi tiy guddi xamal loolu yëpp ay foo la mais quand même état bi def na lu mu mën. daf leen na daf leen naan ñun élèves yi ñun ñun ñun lu ñuy demee ñun coronavirus mu ngi am c'est-à-dire yéen vous ne calculez pas à long terme vous ne calculez pas à long terme. bon ñu ko yàlla mu mu def trois mois mais mu demee 6 mois essence bi ngeen di jooy essence boobu da ngeen ko soxla pour seen courant n'est-ce pas donc fi ngeen dugg di xëccoo loolu du débat xam nga lan la depuis courant naa ñëw ba léegi da ngeen di subir mais da ngeen di teg plan bi nga xamante ni à long terme au cas où ñaanuñu ko yàlla courant naa mën na dem ba un mais na ngay def ba gérer dans ba un foofu moo taxoon sànq ma laajte la question où est l'argent du Sénégal dëgg la ku nekk def si war a def. mën mëneen quoi bu ma excusez nag sama wolof da ngay waaru ku nekk mën na si war a mën a def lu mu mën en commençant personnel ba communautaire ci comprends léegi nag ñi nga xamante ni dañ leen jox ay ndomba tànk maanaam ndomba tànk ça veut dire que tu as un pouvoir le pouvoir c'est l'argent et ce qui et son corollaire quoi ci comprends léegi président dafa am pouvoir ainsi que tous ces autorités ah léegi nag pouvoir bi ñu leen jox parce que ñu ñoo leen ko jox ñu ñoo leen jox lépp ne leen aral la ñu lépp defal la ñu yëpp muy sécurité hygiène et cetera et cetera léegi nag ñun lu lañ sañ lu lañ jox ñu léeg leen def leen leen lu ñu lii dañu ko defal c'est simple nous sommes dans un pays c'est-à-dire dañu war a xalaat pays mooy lan état mooy lan nation mooy lan économie nu muy doxee c'est-à-dire on subit tout le temps il faut que ñuy xalaat comment les choses marche comment contrer les choses virus la d'accord virus la d' accord léegi virus nan la ñuy war mën a def ñun ba je ne sais pas corona dina la dal au pas mais balaa loolu nan la ñu mën a aaroo ñun personnellement ku nekk ah sa doom day sibiru wala mu am soj balaa nga dem hôpital yaa ngi koy defar ay mbir waa léegi mbir mi foofu la quoi il faut que ñu xalaat pas ñuy xëccoo waja waja waja maa am c' est pour ça c' est pour ça que je déteste le moo dañuy def débattre dañuy débattre dañuy discussion si tu fekk su fekkee ne xalaat yooyu yëpp ce sont des c' est des affaire bi du débat affaire bi du discussion partage d'idées la. par rapport à tout ça. ma position par rapport à tout ça tout ce qui est dit ici là. dafa am noo xamante ne noonu la ñu war a gérer comprendre léegi man man dama ko poser une question rek pour de savoir moom bu ñu doon xalaatal. comme par exemple Macky Sall instant yii nii nan la war a taxawee yow moom lan la ñuy nan nan la demee quoi waaw. premièrement je dirais que qui veut voyager loin ménage sa monture. bu fekkente ni xam nga li nga yàpp li nga yor di nga mën a définir sa benn plan d'avenir Sénégal lan la am déjà moo taxoon sànq je rappelle encore mu poser sama question bi où est l'argent du Sénégal parce que mënoo avancer sans pour avoir autant d'informations yi nga xamante ni moo lay permettre nga affronter sa futur incertain en plus. oui l'argent du Sénégal léegi président de la République ne la génne naa si table bi 1000 milliards. yow yow man yow Papis. d'accord naa vous avez 1000 milliards. waaw 1000 milliards du dara par rapport à ça. waaw 1000 milliards du dara par rapport à ça. mais Papis yow tu as un budget de 4000 milliards. waaw mu génneel la ci 25 pour cent 1000 milliards. du dara par rapport à ça. ah mais kon donc yow. parce que dañu xamante ne kon état bi ñun amuñu amuñu moyen. boo xamante ne mën nañu combattre. on est face à un fléau. xaalis question bi sax na ko bu yàgg fekkoon loolu la Europe rek na ko bu yàgg mais tey jii ne question bi du xaalis question moom mooy c'est une d'organisation boo xamante ne état moom moo war a mettre en place pour mën a dimbali gars yi mais tey jii nii suñ commencé woon di baax tey ñun ndax tey ñun ñun dèjà luñ def nii sax moom ñun commencé nañ lii nii maanaam ñu ngi sensibiliser ñu ngi wax loo xamante ne maanaam mun na njëriñ état yi wala kenn ci état yi war na ko mun a jël ba pare am ci loo xamante ne lu baax loo xamante ne mu nekk na ci mu jël ko peut-être ne proposé ko ne lii ak lii lii pourtant gis naa dégg naa gars yi di ko waxee léegi loolu suñu contribution la mais tey jii nii dèjà nañ commencé ñu di baax nuñu Grand Yoff la ñuy wax maanaam Grand Yoff lan la mën a lan le maire de Grand la mën a def maanaam loo xamante ne mën nañu koo soutenir ci maanaam population boo xamante ne moom moo ko mën a gérer ñun foofu la ñu commencé ba pare doo ko yëg di wax ci état beeg nu mu war a def ak conséquence tey jii suñ commencé ñun lu def nii def nañ ko fii lañ commencé ñu wax nañ ci euh, def jox nañ ci ay xalaat mun nañ ko étendre ay association wala ay ay ay ay yoo xamante ne ne ñoom sont des bonnes volontés war nañ mun a mànkoo génnee ay weccet boo xamante ne mun nañ jënd ay gel yoo xamante ne tey jii nii mun naa jóge fii nii ba dem ba ba fële ba marché ba te du gis koo xamante ne sol na masque wala wala sol na kii tey man su ma wàccee bay sol ma masque baa ma sol ga ay gants gars dañ may xool quoi dañ may naan waaw gaayen bi daal moom dafa ragal affaire ñoo ko war a mën a ñu ñoo war a mobiliser wu mettre mettre au point ay ay ay moyens ay ay effort boo xamante ne war nañ ko mun a yóbbu ci ay ay ay bonne volonté yoo xamante ñuy grand yof su ko defee ñoom ñu génnee seen xaalis jox ñu ñun ñu organiser wu jënd ay gel jënd ay masque sensibiliser ñu xamante ne jege nañu ah keneen su defee noonu beneen association de beneen groupe def noonu beneen quartier def noonu tey jii man damay dama jàpp ne dama yaakaar ne grand yof war na mun a am loo xamante ne ne ñëpp nañ mën a équipé wu baal ma dafa maanaam dafa am loo xamante ne dama ci bëggoon yàgg waxtaan mais comprendre si sa biir wax bi daf si génn quoi xam nga loolu lan la jàngal benn affaire bu simple la ñuy jàngal daf ñuy jàngal la xamuñu lan mooy patriotisme loolu la ñuy jàngal te loolu noonu dafa yàgg lu man loolu dama si yàgg kaas loolu dama si yàgg kaas du kii nii de ba pare c'est-à-dire li la koy wan ay autorité journalistes yu mag yi par exemple exemple bi gën a terre à terre si li mu lay wax da ngay seetaan équipe nationale de football équipe nationale la ñu wax équipe bi pour nation bi la comprendre nga mais noo def ci discours yi wala si reportage bi di nga dégg ñu naan ay l'enfant chéri de xaar yàlla indi individualisme ah, l'enfant chéri de Bambane les boys de Aline Cissé comprendre la maanaam ñun lii mooy suñu suñu Sénégal ni lañ ko war a jàppee ñun xamuñu loolu maanaam ku nekk yow individualité bi ba pare dafa am benn affaire bu gën a garaaw loolu est-ce que xam nga benn affaire am na ñoo xamante ne ay sénégalais lañ ay citoyens sénégalais lañ leen dëkkaloo leen micro ne leen président Sénégal nu mu tudd xamuñu demal biir Kédougou nga xool. xam ñu ñu nekk fii di wax nii nii nii nii nii nii rek mais am na ay pop ñoo xamante ne ah ay citoyens sénégalais lañ ci boppam laa wax. boo leen jokkoon micro ne leen président Sénégal nan la tudd xamuñu nu mu tudd. man daal xam nga comme par exemple man comme sànq Papis lu mu wax ak El Hadj gis nga affaire yi problème d' organisation la comprendre nga comme El Hadj li mu wax gis nga gis nga gis nga gis nga combat bi ni ma ko waxee woon bi passé amul nekk fii di xaar kenn gis nga mairie bi. wala président de la république sax ñoom même sax bu ñu deful effort comprendre nga gis nga nit ku nekk da ngay préserver yow sa santé personnelle xam na nga koy préserver comme li ma waxoon bii passé dafa am ay ay médecins yi si jëm boppam ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo xarañ ci wàll boobu noonu ñoom ñoo càmbar seen biir ñu waxtaan ñu ne feebar bi ki nga xamante ne moom dëgg dëgg dëgg dëgg bëgg na si mucc dëgg comprendre nga dafa am ay mesures yoo xamante ne da nga koy respecté moom mooy lan moom mooy raxas say loxo comme genre yooyu noonu raxas say loxo booy booy tisool yi nga teg sa loxo comprendre nga bàyyi di joxe loxo boo santiree yenn yenn yenn yenn yi nga xamante ne moom mooy signes nga dem hôpital nga jéem a xool sa bopp comprendre nga organisation xam nga moom mooy lan yow da ngay fexe loolu sa biir kër mu tàmbalee fa seen waa kër gis nga gis nga boo demee si ay SICAP nga dem ay cité yi yenn cité nekk fii nii ñoom jeunes yi yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si biir quartier bi ñoom ñoo organisé wu de telle sorte que ñoom ñoo ñoo génnee seen i poche personnel ñu génnee ñu cotiser comprendre jënd ay satala jënd ay genre paan teg ay ndox teg ay saabu si bun si bundu koñ bi lañ koy teg mais yow ñun suñu biir kër yi sax amuñu ko ñun dañuy wax nii rek de te xoola amul Grand Yoff ba Grand Yoff daj amul fenn foo xamante ne benn kër boo xamante ne ni da nga fay dugg ñu ne la rax man démb démb dem naa Sicap laa dem fii nii euh, euh, Liberté 5 dafa am dafa am ku ma demoon xooli dafa am sama benn paa bu ma waroon dem mu jox ma xaalis foofu noonu mais bu ma dem kër seen kër ñoom dama dugg da ngay ñëw xool si bundu kër gi de si côté koñ si côté kër gi noonu nga gis ñu teg fa benn genre genre genre pan teg omo teg saabu teg gel teg lép nga ma raxasu foofu ba pare mu dugg si damaa ne carax ibi bundu kër gi rek gisaat ñu tegalaat ma la même chose foofu noonu comprendre nga nga xamante ne ni ñoom ñoom nekkul mairie bi moo leen ko defaral daal ñun du du cadre dañuy xaar mair bi deful lu mu war a def mairie bi deful parce que ñun dëpp bañ fi nekkee ba léegi dégguñu mairie bi xam nga di dox ay ay def ay sensibilisation ci wàllum affaire yi dégguñu ko gisuñu ko mais boo demee si yenn quartier jeunes yi nga xamante ne comme mouvement associatif yi ngeen di wax yooyu noonu gis nga gis nga ñooñu instant yi nii ñoom ñoo nekk di def loolu gëmal na yàlla bu dogalul feewul ci yow feew du mës a ci man du ñëw ci yow bul sonn sa bopp yàlla dogal na ko ba pare mbirum dee nag yàlla ko yor yàlla moo programme dee boo nekkoon fii ba Chine gis nga ñu dawoon Chine jaar Europe ñëw ba fii feebar bi da topp ci feebar bu la dalee dalee bu sonal sa bopp ñu fa toog est-ce que dal na leen lii mbirum yàlla ñu dellu ci yàlla rek man loolu laay waaw man problème bi man ay politique ngeen wax man sama ma non ñun waxuñu politique ñun waxu sensibilisation waa léegi yow ma laaj la benn affaire Sadio yow d'accord li d'accord médecin li ñu wax waa léegi sensibilisation bi ngay wax islam moo ko njëkk a jàng islam moo njëkk a jàngale. voilà léegi man nag si islam dafa jàngale boo boo yeewoo boo yeewoo. si yooyu lañu bëgg nga wax ñu na ngay ñaam raxas say loxo. ñaam booy def si yooyu lañu wax ñu. mais ma yàlla la war a aar. sa wàllu santé loolu force la ñun ay musulman la lay wax tey jii tubaab bi ñu gën a set raxas loxo bi ngay wax nii tubaab bi si la dëkk te mu ngeen di dal

léegi ñun lenn la sànq maa dégg ngeen di wax di mairie mairie mais loolu leen la rek politique mauvaise bi nga xamante ni Sénégal moom la yàgg dund depuis indépendance ba léegi. affaire bi lenn la gouvernement maanaam pouvoir ak opposition pouvoir opposition warul am ci dëkk bi nga xamante ni dafa war a dem fu sori quoi. yaa nekk pouvoir ok ku nekk pouvoir bu xañee li nga bu war a jox opposition loolu war a yegg si askan wi du mës a egg askan wi mooy souffrir. tant que ñun askan wi soi-disant ñun askan wi nous ne prenons pas conscience de notre valeur personnelle mais lii ngi jàng comprendre ñun ñoo war a jël suñuy responsabilité ñoo war a teg defoo lu def defoo lu bëgg mais tu dégages wax dëgg baax rek waaw surtout di raxas suñu loxo bu set chaque jour waaw affaire yi moom nañu moytu de affaire bi am na de am na ñu naan nag amul man maa ngi dégg ay benn ñaar ñu naan amul ay ndogal yàlla affaire yi ndogal yàlla waaye tamit yàlla yàlla bay bay sa tool de fii ndogal yàlla ndogal yàlla loo ko loolu liggéeyal dem doo ko fekk waaw waaw amin amin loolu moom amin moom loolu moom loolu waaw loolu moom man de man de sensibilisation sensibilisation sensibilisation bu may indi mooy maanaam maanaam ku ci nekk kenn ku ci nekk rek na nga ko xool sa bopp quoi bu ko bu ko xoolee ci keneen maanaam nga xool ko sa bopp yow li ngay lépp lépp li ngay def pour pour mën a nekk euh, propre yow nga mun koo defal sa bopp maanaam ngay ñu ne nga raxas say loxo ak gel soo amul soo amul ndox soo amee ndox ak saabu baax na soo amul soo amul ndox ak saabu nga am gel baax na ngay maanaam soo sentiree loo lépp loo xamante ne ne maanaam bokkutoon ci yow maanaam ci wàllum feebar maanaam sa bopp day métti wala sa sa yaram wala genre yu noonu lépp loo xamante ne toon ci yow rek na nga na nga appelé 800 double 0 cinquante cinquante wala nga wala nga def kii quinze 15 gars yi ñoom ñoom dinañ la ñoom dinañ la guider dinañ la wax yow yow ni nga nan nga war a def pour mun a maanaam euh, ñu jël la en te ngay bañ a di soo sentir yenn yenn kii nga bañ di déplacé wu ci ay centre hôpital yi ak genre yooyu noonu soo wootee rek dinañ la wax yow nga toog ñoom dinañ la ñëw fekk si. Euh, ñu ñaan yàlla rek ne feebar bi génn fii nii euh, Sénégal euh, doon pays boo xamante ne pays teraanga la ñaanuñu yàlla loo xamante ne ne lu bon dafa war dafay war a dugg ba pare des bi dañoo ñaan yàlla mu génn fii asalaamaaleykum rahmatullah. nee naa instant yi nii man moom feebar fu mu toll nii affaire yi warootuñu basé wu sax si mairie bi gis nga man su may wax kër yi laay waxal. ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Sénégal yëpp gis nga instant yi fi ñu toll nii képp koo xamante ne ni wayjur nga dañoo war a xamante ne xale yi école yi dañ ko tëj nekkul dañ ko tëj ngir Macky Sall wala président de la république wala da leen neex rek ñu tëj école yi dafa am feebar boo xamante ne dafa dugg suñu réew loolu moom moo tax ñu tëj école yi activité yu bëri mu taxaw feebar bi nag pour nga xamante ne li nga xamante ne moom moo ko moom moo koy saafara dëgg dëgg dëgg xam nga lan lañ la wax nee nañ xale yi nañuy set set bi moom mooy lan bu ñu demee ci biti bu ñu ñëw boo boo leen mënul teree ñu dem ci biti ba ñu dem ci biti bu ñu dugg see balaa ñoo jëflante kenn nañuy raxas seen loxo ak ak ak saabu ñuy bàyyi li nga xamante ne moom mooy joxante loxo ñuy joxante loxo ak naan kaasu ataay yi nga xamante ne ni moom lañ am sénégalais am habitude di ko tàmm comprendre nga yooyu yëpp mu doon loo xamante ne dañ koy bàyyi parce ñun ñaanuñu yàlla mu duggee noonu Afrique plus particulièrement fii nii ci biir Sénégal mairie bi nag mairie mairie yi mairie bii nii mairie bi nga xamante ne ni moom bu defee Sénégal yëpp dañ koy xam gis nañ Barthélemy Dias yi nga xamante ne moom la def si seen mairie man gisoon naa barki démb xaw ma wan mairie bu nekk xaw ma golf xaw seen seen maire bi li nga xamante ne loolu def na ko mairie Grand Yoff buñ fi defee dara wax dëgg fa ne yàlla te ñun xaaru ñu fii instant yi combat bi fu mu toll ñoom ñoo war a njëkk a ñëw taxaw temb ñëw ñëw ñëw jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy population wu Grand Yoff bi si combat bi ñun nag ba léegi dégguñ leen mais duñ leen si xaar mouvement associatif yi nga xamante ne ñu ngi si biir gox yi ak ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk jeunes yi nekk si biir gox yi buñ ci xaar kenn nañ jug ñu dox ko waaw loolu daal lañ laa xamante ne ni waroon naa ko wax waa mairie bi ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy waajur yi lool loolu di ndax kii kuñ fi dóor ba nga tëdd doo amoo koy porter plainte ñi ngay porter plainte ñoom ni ñu koy def defuñu ko am na benn policier bu ñëw euh, defoon live di expliquer nit yi ne lii defuñu ko parce que dañoo soxor dañ ko def pour notre propre sécurité tant chef de l'état moo ñëw taxaw ne nit yi nañ tëdd 20 amul benn doomu aadama bu waxuñu la sax nga tëdd parce que dañ ne la nga toog sa kër sa kër lépp li ngay uti si mbedd bi mi sa kër nooy def ci mbedd bi 20 demal nga toog sa kër toog ak sa famille loolu dara dàq ko dañ ko def rek pour sa pour aar la kon da nga ko war a respecté amul ay 22 sax beneen yoon débat bi ku nekk day def distance 1 mètre parce que ñun déjà ñu koy débat te respecté wuñ ko ah, ba pare waroon nañ ci teg gel antiseptique moo tax dañoo war a a tëdd parce que président bi même su ko waxulee ku nekk sa magu bopp nga teel a tëdd ndax policier yi kuñ ci fekkal dinañ la defaral bagage te mënoo si dara xam nga li ma waxoon sànq rek l'islam sax day maanaam day tere toogaaw yu mbedd toogaaw yu mbedd l'islam sax day tere yonent bi da ko pour jàngal ñu pour sensibiliser borom moo tax feebar feebar boo xoolee boo jàngatee sa xel dëgg-dëgg nga xam ne feebar bi lépp lu islam di tere loolu maanaam loolu lay maanaam loolu lay tere caxasoo bi toogaanu mbedd bi xam nga tàncaloo bi loolu lay lislam da koy tere moo tax man nañ delluwaat si yàlla man yàlla suñu borom ñaan ko te xam ne moom kese moo yor antivirus bi antivirus moom kese moo ko yor du état du du du président du dara yàlla kese moo ko yor parce que lii yàgg lii lu bees la rek ñu ngi suñu koy soog am ñu ngi koy soog gis mais yàlla yàgg na ko dogal ci ay xeet xeet ñu jiitoo yàlla yàgg na ko def xam nga kon mën na lu delluwaat si yàlla suñu borom loolu moo ci moo mooy njariñ bi yàlla moo xam kañ lan mais yàlla ko yàlla teel a faxas mu dem. waaw alhamdulilah. salaatu wa salaam ala rasulillah. bi corona jàpp na ko juif bi corona jàpp na ko musulman bi corona jàpp na ko. te boo xoolee ñetti religion yooyu yëpp yàlla moo ko wàccee ah mais boo xoolee ñetti religion yooyu yëpp sa base c'est quoi sa base mis à part la foi c'est la propriété quoi faw nga set pour nga mën a nekk ci biir loolu dog dog yu mu lay tegal règle yu muy teg waaw gannaaw loolu rek comme gars yi la ñuy wax rek dañuy diw maa sama gars yi toog mais nag ñu ngi jégalu ñu ngi jégalu si peut-être xaw nañ jégawoo xaw nañ peut-être c'est un peu passible mais alhamdulilah balaa ñuy toog jël nañ suñu matukaay aussi macha allah ah, di di di di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan borom bi wàccee jàmm waxuma Sénégal kese parce que lii c'est against euh, humanity quoi c'est contre toute l'humanité mooy ku gëm ak ku gëmul ak ate ku gëm ak moo xam yàlla na waa yàlla wàccee jàmm quoi mais nag nañ changé jikko yi ah fen yi bëri na trop ci àdduna bi. te fen moom dara du dem ci kanam ak moom. waaw léegi jégalu ñoom lay waxal ko parce que ñoom laa gën a laay fal quoi waa ëndëxut bi ñoom laay waxal xam nga waaw affaire bi dëgg la feebar bii nii dëgg la amul hardcore amul underground amul tëg life amul dara affaire bi ñëpp lay kepp ñëpp la mën a jàpp xam nga. nañu farlu ci li yi di wax quoi bañ a jàpp na lu ñu wax rek ñu naan lii nii ay détails la wala du jàpp nit ku ñuul wala day def nii wala day def naa comprendre la affaire bi tar na quoi ñun comprendre nañ nu mu demee xam nañ situation yi ngeen di dund tar na parce que am na si ñoo xamante ne amuñu sax fu ñu tëdd xam nga amuñu sax gaale bu ñu piol boo xamante ne dinañ fa war a mën a dallu ñun xam nañ situation yi quoi xam nañ ne effet dafa tar quoi xam nga mais benn af le rek ñu ñaan yàlla xam mu jeexal ko quoi waaw ñu jéem a respecté affaire yi xam nga ak nu mu métti métti ñu jéem koo respecté xam nga ceene si gàlle yi xam nga di raxasu respecté distance yi tamit xam nga képp koo xamante ne tamit santiir nga dara loo xamante ne mooy loolu xam nga yow même bu fekkente ne amuloo xamuloo sax xam munoo jàpp numéro téléphone parce que am na mu tamit mënuñu jàpp numéro téléphone xamuñu comprendre na nga xool kenn koo xamante ne xam nga jege na la koo xamante ne war na la mën a jàppale xam nga ki la gën a jege rek loo mën a informé woo si situation bi rek xam nga nga jéem a informé wu quoi xam nga te message bi nay jàll quoi loo ci xam rek xam nga nga partagé ko ak sa morom waaw ñu ngi nuyu ñëpp xam nga di sant ñëpp xam nga di gërëm ñëpp di wax ne nii la quoi comme ni ñuy wax rek quoi xam nga nekkul ay professionnel à la matière la ñu invité fii invité wuñu médecin invité wuñu kenn quoi comprendre mais juste ay jeunes lañ yoo xamante ne xam nga si Sénégal la ñu nekk xam nga am ay idées yu différent xam nga mooy comme li waa may wax rek xam nga li mbedd bi di xalaatee ñun loolu la ñuy xalaatee quoi loolu la indiwaat xam nga euh, partage la xam nga di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah yaa ngeen jëf